ñu ñëwoon ci kanamu ministère des sports ak euh, représentant ministère de l' éducation nationale pour euh, déparer suñu wër Sénégal bi ñuy def à vélo donc wër Sénégal bi dëkk yëpp la ñu dem ci Sénégal dëkk bu ñu dem nañ fay may ay kaye xale yi nga xamante ni xëy na seen i waajur mooy am nañ jafe-jafe pour jënd leen ay kaye loolu daal tey moo ñu moo ñu tax taxaw fii. alors ren am nañ euh, xanaa juróom fukki participants. Eh, am nañ tamit ñeent ñoo xam ne Gambie lañu jóge lépp rek ci firndeel eh, ak dëgëral relation yi am eh, diggante Sénégal ak Gambie distance bi yëpp yëpp 2500 kilomètres la waaye ñun 1000 kilomètres la ñuy def à vélo si 2500 kilomètres yi ki fan ak ñeent lañ koy def waaw par rapport ak yeneen yi mooy comme panneaux yi ma wax léegi nga xam te ñoo ko defaral suñu bopp am nañ télé bi ci biir am nañ frigo ci biir am nañu sonorisation ci biir lépp ñoo ko defaral pour pour panneau caravane bi mën a autonome suñu soxlaa courant suñu soxlaa ndox mu sedd sax ñoo ko jox suñu bopp ci naaj bi loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la lu ñu war a jàllal tamit ci réew mi te xam ni doomu Sénégal xëy am na lu ñu mën loo xamante ni yaakaaruñ ko mais yàlla may nañu ko ak kaye yi nga xamante ni dëkk bu ñu tamit dañu xam ne junni kaye xale yi nga ndaw yi nga xamante ni xëy na seen i waajur amuñu doole pour jënd leen ay kaye incha allah waaw dañuy gërëm euh, suñu xarit yi parce que ay sénégalais lañ comme ñun dañ leen di wooye suñu xarit parce que ñu baax lañ dajaloo tey la seen troisième année ñuy wër réew mi ak seen vélo yi ak situation yu pour dimbale ay yeneen doomu aadama di may ay kaye di dem ci collectivité locale ay ndaw lañ mais ay ndaw yu am ful la bëgg seen réew lañ leneen li mooy di leen gërëm ci taxawaay bi nga xamante moom lañu ñu nar a taxaw parce que tey daaw bi ñuy dem seen caravane lépp dañ ko soxla woon ci wàllu courant ak lépp ci naaj wi fexe nañ ci ci seen xareñ lu ñu jàng fexe ba ñu am seen courant muy panneau solaire yoo xam ne dinañu am ndox mu sedd dinañu am télé dinañu am seen sonorisation loolu nag bu ñu ko defee dañ leen ciy sant gërëm